benn doomu aadama bu am juróom fukki at moo ñàkk bakkanam fii ci Touba Daaru Manaan mbir mi nag mu ngi am ci subaak ak ajuma gi diggante fukki waxtook benn jàpp fukki waxtoon ak ñaar lépp nag mu ngi sababu ginnaaw dàqante gu tar goo xam ne nii moom mii di waa ji mu ngi ko doon dàqante ak douanier yi gannaaw bi mu yoree forot buñ sukkandikoo ci askan wi nga xam ne nii ñoo fekkee mbir mi te féete foofe ca Touba Daaru Manaan njort nañ ne kat waa ji douanier yi ñoo ko faat ginnaaw bi ñu loo jëf jële nag ñoom ñi ko fekkee indi nañ ci ay leeral. ndey maanaam suñ koñ la ko defee mais bi mu jógee ñoom ñi ngi jógee ko tey Daaru Salaam mais ñi ngi ko topp bi ñu ñëwee ba agsi fii am na benn oto buy ñëw xam naa loolaa tax sax ñu agsi ci poto bi. léegi bi ñu dalee ndax fii dafa bari suuf ñu wëlbatikoo dal ci poto bi bi ñu jógaatee daal di dalaate fële mais ñoom duwaañ yi dañoo wëlbatiku moom gaa yi yeneen yi ci des nekkuñu ci léegi moom mu wëlbatiku génne ko daal di koy tëral daal di takk oto bi daal di dem lii daal nii la demee ndax waa duwaañ yi ci boppam ñoo wëlbati takk wàcce ko ba noppi wëlbati ko takk oto ba daal dem lii daal moom ñun loolu lan ci gis ñun. duwaañ yi kay ñoo doon dàqe fraude rek lañ ci xam ñun. fekk ñu fii ñu degg teel la ci daw génn. loolu rek dañ lañ ci am gis biñ ñëwee nag ñu ngi fekk waa ji mu ngi tëdd. ñoom daal bañ gisee waa ji mu tëdd taxul ñu jéem ci dara dañoo daal di génne ay buum daal takk oto bi. takk daal di ko lonk dem. ak yoroon nañ fetal kay duwaañe bi yoroon na fetal daa ragal a tiir xam naa rey keneen rek yor na paaka sax paaka bu gudd yor na ko sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñi nga xam ne ni fekk nañ mbir mu ñaaw mile neneen kat li leen ci gën a naqari ñoom ñi di duwaañe yi bi ñu defee mbir mi dañoo daw bàyyi fi waa ji ba ñoom ñoo woo sapeur pompier ngir mu ñëw taxawu néew waa ji. buñ tuyee nag koo wàcce ci biir oto bi la nekkan ñu wàccee ko tëral ko. daal di lonk daal di takk oto ba dinañ dem ak moom. léegi moom fi lañ ko bàyyi. fi dem laa la wax. ñun gis nga waa ba mu woddee dafa sëpp jala. xoolal sa waay xoolal fii lañ tas fii fii lañ bi xoolal fii la ko duwaañ tas moo toj lii ngay ba fii comprendre nga. xanaa waa ji dafa génn oto bi. non bi mu bi mu moom booba mi ngi mi nii. mais diggante bu gàtt la def noonu rek daal di taxaw bi sapeurs yi ñëwee bi ñu ko xoolee xam naa ne moom leer na ma ne moom soreetu ñu daal di wëlbatiku fob accident ne waa ana duwaañ ñu ne leen dem nan ñu ne kon ku taxawun fi defuñu dara ñu ne déedéet loolu rek lañ ci am. askan wi fare ci daaru Darou naan te fekke mbir mi ñoom kët ne nan jamono yi nga xam ne nii ci la mbir mi am diggante fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar bu ci yàlla defaloon sutura ñeneen mën nañ cee ñàkk seen bakkan. rawatina tout tànk yi. xoolal ñun ñii yàllaa def suturaay dañ doon dee waa koñ bi suñ mbokk yëpp biñ ñëwee dañ ne waa Mbayeen rey nañ leen ndaxte ñoom fii ñun fii rek la ñuy toog xam nga ne xool oto bi ñëwoon fii fekk ñu fi ramassé ñu yàllaa def sutura de waaye kon dina fi rayaat ñeneen ñu dul ñu ñoom ñoo fa génne oto bi tëral ko mais tëral gën ko tëral sax moo gën a ñaaw. ni ko tëralee ci mu sës ci miir bi rek moo gën a ñaaw. Ah, fii kay kon fi fekk dana la rey maanaam am na waxtu woo xam ne ni fi gone yi daan mel buñ fekkan moom li fiy faatu dana bari trop ay boori bëccëg yooyu rek xam nga boobu heure boobu noonu ay onze heures midi waaw ci fàttali rek benn waay boo xam ne nii mu ngi tudd Cheikh Ndiaye Guèye war a am lu tolloog juróom fukki at am benn soxna ak ñeenti doom moom kat moo ñàkk bakkanam ginnaaw ak dàqe goo xam ne nii mu ngi ko doon dàqe ak douanier yi yoroon frot askan wi féete ci foofu ci Touba Daaru Mannaan te fekk mbir yi ñoom kat njort nañ ne ñii di douanier yi ñoo ko rey ba pare dem bàyyi ko fi mu nekk mbir moo xam ne ni nag askanu Touba ñu ngi koy ruumandaat ginnaaw jéey ju ñaaw ji nga xam ne ñu ngi ciy joxoñ baaramu tuuma ñii di douanier yi ñenn ñi kat ne nan jamono yi ñu ngi nemmeeku ne ñu ngi dugg fii ci biir Touba di jël oto yi nga xam ne nii amut ay këyit am na ñoo xam ne nii ci ndaje mi sax firndeel nan loolu mu nekk mbir moo xam ne nii ndax kon jotut nag sëkk ñu wax ko kilifaay diine yi nga xam ne nii ñoo féete fii ci Touba ñu indi ci ay saafara.